man la innam na Abdoulaye Seye dëkk fii ci koñ bi di wane suñu tiitaange rek ak suñu njàqare ci gaar bi tiitaange li ko gën a waral mooy xale yi xale yi fii yàqu man damaa jàpp ni sëñ bi niñ ko ko war a waxee dëgg-dëgg waxewuñ ko ko noonu ndax dama jàpp ni loolu bu ko yëgoon moom ak ni mu bëggee gone yi yaru gone yi baax dina jël solution bi yi amee sëñ bi def nu yabal pour ñu xool lan moo xew li xew nag mooy yam nañ ci koo xam dañ ko rey rey ko ay jam ko ci dënn bi ay jam-jam yu metti xotti ko tëral ko foofu yàlla dogal na sapeur pompier ñëw na def li mu def police ñëw na tam def ko saam. bu yàggu rek rey nañ fi nit doon nañ fi benn pa barre de fer mu dee mm-hmm. tey reyaat nañ fi nit mm-hmm. ñaata at lañ jooytu mm-hmm. kun fi gis gisuñu mu le maire jëlu ci benn benn solution bu mbax sëñ bas mi ñu yabal tey gisuñu benn solution buñ buñ ci wax. li nu wax daal mooy na fi tabax yi jóg. parce que vraiment sonn nañ ci loolu ñun fi leen dëkk fi leen juddoo fi leen yaroo waaye depuis boobu ba léegi amuñu jàmm gaar bi sax dañoo dem ba kenn nawlootu leen ku ne gaar bi rek saw fi dem màggal boo amee doo xam looy màggal dégg nga benn événement du am ci Touba ba nga ba nga jàpp ne gaar bi moom bokk na ci Touba da nga jàpp ne moom Mbàkke la wala feneen doo xalaat sax mi ngi ci Touba te lu mel nii warut a mën xew ci biir Touba. man sama gis-gis mooy maasale tabax yi rek mooy ñi sëñ bi jox ndigal nag bu fekkente ne bi defuñu li leen sëñ bi def jox daa mel ni dëkk bi da leen a ñor wala sëñ Tuubaa yitteelu leen man loolu laa gis man. sama kër a ngi nii ma jaakaar lool nun noo gën a sonn ci gaar bi sunu doom du génn te bu nu bu nu toogee ci mbedd mii ay ay saagaay ndey lañ ñuy saag dinañ nu sànni ay xeer dinañ sàcc sunu alal sunu télé génne nañ ko ci biir sàcc ko nun mënatunoo génn. mënunoo def leen su ma ko doon tënk damay wax l'heure est grave parce que fii dafa nekk benn zone boo xam ne nii bu timis xasee jot dafay enclavé wu ñi fi dëkk xam nañ ñi nga xam ne ñoo dëkkee si ginnaaw nii duñ traversé ñëw nii ñi dëkkee fii duñ traversé dem fii xanaa ku fi xamul yaa fi jaar dafay am ay agression dafay am viol te ñuy gis li nga xam ne moom moo koy waral ñu mu mën a saafara wu mu mel ne ñi ko war a saafara dañ ñu lu ñun gaar bi nag ñun danoo sonn ñun dun yónni suñuy doom guddi duñ leen yónni bëccëg violé nañ fi ay xale. quatre personnes violé nañ leen fi am na koo xam ne dem naa ba seen kër seeti ko te mujjut fenn ba ci seen kër yow mujjut fenn léegi nag ku yor sa paset ñu nangu ku yor sa xaalis ñu nangu tey nag lu yomba saafara la dañ leen fee baax buñ leen fi bàyyiwutoon ba tey jógee nañ fi. te yaa ngi ci biir nit ñi taxawaalu te ñoo nu xañ sago nun fi mu nekk sonn nañu tàyyi nañu nun daal lu dul toj tabax yi toj koo nu ko gënal buñ ko manee am toj koo nu gënal. kon dama jàpp ne bu fekkee dafa toll fii meeru dëkk bi moo deful li mu waroon def li mu dige woon meeru dëkk bi moom moo ko deful ndax ne woon na dina fi def fii benn poste police mu gën a taxaw suñu sécurité mais am na sax leneen lu gën a gaaw euh, GMI yi amuñu ay ay ay logement mën nañ leen defar fii logement. mën na am service d'hygiène mën na am leneen ak leneen mais ñu def ko ay tabax yoo xam ne nii wóor nañu ne ñi nga xam ne ñoo fi tabax tabax yi duñ mas a dikk dëkkee fii duñ fi mas a dikk. xale yi maanaam xale boo fi jël xale yi ñu occupé wut xale yoo fi jël daanaka buñ dee cent cinquante yi yàqu nañ ci gens ak dawal saret te saret yooyu li war li waral mënuñ cee jóge mooy ñi leen koy dawalloo dañ leen di gens loo pour mën leen a téye gaar bi tamit xale yi fi nekk yu bëree bëree bëri. seen chef de bande yi fi nekk gone gu daw ba dugg fi li ñuy njëkk a def dañuy fexe ba ngay geex ngir ñu mën laa téye ndax fii ko ànd ak sa ko doo fi nekk ñoom loolu lañ xam ba loolu lañuy ñuy téye xale loolu nag man moo a sama tiitaange ak tiitaange waa koñ bépp ñoo ngi koy ñoo ngi alerté ñi nga xam ne ñoom la fi sëñ bi teg di leen koy yëgal te koy te tey wax tamit képp koo xamante ne bii jege nga sëñ bi ñoo ngi lay yóbbante suñu yóbbante ci loolu. des fois ñu woo police des fois ñu woo waa xuddaamu des fois ñu woo koo xam ne ni jàpp nañ ne kàddoom moo gën a kawe suñu kàddu kàddoom moo gën a kawe suñu kàddu mais su fekkee police dafa dikk fii def fi check point wala waxu daamu def fi check point ñu fi yàgg parce que am na am na yeneen yoo xam ne xëy na mooy seen i occupation yu ñu war a dem defi mais bu ñu fi jógee xale yi dañuy ñëw dellusiwaat moo tax ñu ngi interpellé directement ministre de l'intérieur moom moo yore suñu sécurité dañ koy waxaat nañ ñëw fii xool si ko situation yi di mu demee baneen bi nañu dimbali bu fekkee dafay def camp sapeur pompier service di d'hygiène wala poste police lu mu fi mën di def na ñëw def si ko mais lii c'est trop ay viol te viol yi jigéen ñi ñoo ci gën a sonn wax dëgg yàlla xam nga góor sax mën na xaw a résister génn ci mais su mettee mooy loolu mais jigéen dafa néew doole. te fii dañu am ay xale am ay rakk yu góor ak yu jigéen am ay soxna ñuy traversé fii wax dëgg yàlla ñoom xam nañ problème bi nekk fii comme niñ koy waxee rek yàggul dara bi waa Safinatoul Amane laalee ku sant Mbàkke am na problème yu mu saafara mais fii xëy na ñun ñi nga xam ne nii suñu sant fëgg jaay lañ yor ñoom la ñuy touché moo tax waxaguñ ci ñoo ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp lañ bu ñu ci xëyoon def ci benn réunion d'urgence balaa une heure ñu am ci solution. monsieur le maire gisuñu ko fi guddi gisuñu ko fi bëccëg suñ kër yaa ngi nii indoone fees delloo comme ndox gisuñu fi benn picc te bu gaar bi buñ ko tojoon tey jox ñu ko ay kër ñu dëkk ci wala ñu indi fi camp sapeur wala istodorong ñu indi fi ab camp ñu fi wala ñu indi fi camp yi ñu ne fi. waaye ñun ñoo ngi nii mënuñoo naan guddi mënuñoo lekk bëccëg kenn du yónni sa doom guddi marché bii di jaay sax ñoo gën a tiit ndax ko fi jaar ak sa sàngi nangu am na benn pël bu fi jaar atam 2 millions lañ récupéré ci kon nag ñun sonn nañ ci gaar bi nan ñu dimbale gaar bi ñu toj ko joxe ko ay kër ñu indoona ñu jox leen ko jël seen kër yi yokk ci miir bi canalisation bi ba dootuñu amam ndox sonn nañ sonn nañ te lii lu yomba saafaral buñ leen jëlee tey boo lëggee ñu gisaat leen fi solution bi lenn la solution bi lenn la mooy nañ toj tabax yi dëkk ci dëkk bi ak bokk ak sëñ bi ak jege sëñ bi lépp nag sëñ bi yitteel la dëkk bi yitteel la li naqari sëñ bi du son naqar moo ko ëpp solo sëñ Muntaxa ku ne xam na ni moom kenn gënu ko bëgg sëñ Touba kenn gënu ko wóolu sëñ Touba kenn gënu ko tegu ci yoon ku mu jox ndigal da ngaa war a def ni moom noonu nanu xool leen ci man xool leen ci man jooju mun a xam nun ñëpp noo ko war a def ko dib taalib da nga ko war a def nun ñu sëntun Mbàkke te ñëw fi ngir sëñ Touba nag yaakaarunu ko du sëñ Touba lu naqari sëñ Touba moo noonu naqari lu sëñ Touba bëgg moom lañ bëgg lu sëñ Touba gërëm moom lañ bëgg képp koo xam ne kii ak noo mën a sant foo a bokk tey ndigalal sëñ Touba ñoru la yaag bâtiment yi lan yemale rek man lool dong nga ci samay wax.